نهر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين برم نصر الله دين جاء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

النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا نحن أفلح من تزكى وذكر اسم فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى إن هذا لفي شرف الأولى شرف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 عليهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا Allah السلام عليكم الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأشهلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سر الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاذكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه شرورا للنبي ولمن يختفيه صلى وسلم عليه الله في آله وشعبه وكل من تلاه وأوشيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأقلاح والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأغسركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادة والعادات فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادة فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربي ملازما مختيرا له من منير لبه وويل لمن خاله إبليس إلى ما أشاء فإنه يلازم ما أقسى وأزى قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أقص ما أتى به الرسول عليه بآله وشعبه سلام معطي السول وللسي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يعقص ما أتى به المنتقى عليه بآله وشعبه سلام من جاد بانتقاء وأوشيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني سوي الحسد والعنوان بأن لا تفارقوا ما لكم أبدا فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبرا وأنهاكم عن فعل ما لم يتبين لكم كونه صوابا فإنه مما يوجه إلى خيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير تقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلب العيشة من غير العزيز المعز بجاه عبده النبي رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهوى ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة خاب إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبد ربكم اعبدوا ربكم اتق الله عيش كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يسفح فيه عند مميت ميته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 الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من الظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وشعبه سبيل الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء لم نشارك فاحمدوا الله تبارك وتعالى على من جاد به فيه للمنتقى عليه السلام معهم بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وإتق بفضل من جاد بفتح رتق فمن سكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يشكر بكل ما من الخير يستفيد فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يشرف إلى غيركم غيره وطوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم سبيل الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من من أبوا فيه الاجتماع بجاهز الغزوات المربية صلى الله عليه وآله وصحبه سبيل الأربية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتقص ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا allahu akbar kabira walhamdulillahi kashira wa subhanallahi bukratan wa mbokki julit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kaddu yu ñu doon yëkkati ci waxinu arab ñun rek la doon waxal muy wax ju am njëriñ yoo xam ni ñu dolli si ay kaddu yoo xam ni yin gën a dégg kaddu yi wolof muy xutba boo xam ni li muy jariñ mooy soññi xol yi dolli ci tawhid xam li tax ñu daje fii ak sababu bis bii ak ñi fi teew ñëpp kenn ku ne xam na ne ab julit rek la moo ko fi tax a teew ndax ku dul ab julit moom kenn boolewul ci jotaay bi kon julit rek lañ fi woo julit bobu nu woo nak tay ji di bisub tawaski kuko joxon alali aduna jep ne ko dama bëgg nga genn ci lislaam dana ko jaral bakanam bi ndax yaakar na ngëm gu mat rek ngeen fi teewee julit bobu nag nga xam kuko ne do julit mu mer koku war ni dundal tawhidam jamono bu nek war nay renforcer ngeumul war nay yok ak djublom ak beugam digganteem ak borom ndax ci lañ koy attee waaye nag war nay sàmmante ak diine jii ko tax doon ab julit muy lislaam far ubbi xeram di xent di gëstu yokk pastéefam di roy kii ñu ko royloo muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tayam ca képp rek loolu moo tax muy soññee ci ay jikko yu ab julit war a ak ay xaqiida muy pas-pas ci wax ak si jëf ndax gëm Islam iman islam la iman islam ihsan ñet yi ñu diine iman moy da ngay gëm ni gëm naa ci wax borom risala neena wala yakmulu xawlu iman illa bil amali man di dama gëm dama gëm dama gëm ta do ko wax mu ci kenn du nangu dama gëm dama gëm ci ta do ko jëfé kenn du nangu ولا يكمن خول الإيمان والعمل إلا بموافقة السنة foo fekk mu ni jullit bi ne man damaa gëm sama diine dama koy dund sama xol te doo ko gis mukk mu di ko ci ay kenn ni ashhadu an la ilaha wa ashadu anna muhammadu rasulullah dang koy dund nak ci xol te lolu sun borom moko sédé nit ñi amuñ ci accès waye jëfé nak ci sey cër mooy fun la fekk waxuma ca jàkka ja rek de ca rakka ya waxuma ca asaka ja waxuma ca màkka ga waxuma ca ponk lislaam yi waaye sag col saw melo ca gaaram palaas ya saw làmmiñ ca wax ya ca rajo ba ca foo man a nekk ca journaliste ba ca politique ba na ñëpp xam ne kii wax ab julit wax jabi wax su jàddee wala mel melow waneen wu bokkut ak ab julit na seetaat boppam bu jógee ca lam nekk ndax lu waay mën a nekk rek lu mën a leen lislaam moo la si jiitu te moo la ko gën a rafetle lu nit di jëf ba am àdduna lislaam moo ko gën a rafetle boo ko jaaree ci moom te kenn du la sikk bu boobaa loolu moo tax xutba loolu mooy njariñam ab julit ñaari bu teewee ci kanamam intérêt bii day yowmal xiyam rek lay lay jur intérêt bii intérêt àdduna ngëmam war na ko may intérêt bi jëm yoma am la war a soutenir loolu la war a jub masalan tey bu lekk teewoon julli teew ah julli gi ne li ma ci mën a am ci tiyaaba am ah, ci samay ngërëm ngërëmal boroom xam nga suma damay julli léegi faatu xam nga damay lekk léegi faatu kon naa am pas-pas dem julli donte wala fii ngi naa bu reer teewee teewee julli teew julli door loolu pas-pas bu suufee la waaye nit ki war na mën a dundal guddi gépp ngir fàtte ab xiifam gaa yu baax yi noonu la doon dundee lu mën a teew ci alali àdduna teew ci aral lu meuna a teew ci pass pass yomal khiyam donte da ngay ñak ci aduna am alakhirah am ci ngeureumal yalla na la gëna lolé motax dañuy wax ni julit bi nga xamni day jël bopam peese ko ci balance dañuy gis ni walu yalla am mo gëna for mom la gëna jublu mom la gëna bëgg mom la gëna yitel ka walu aduna kooka day ulaihumul humul haqqan way ki nga xamni sa yu entene aduna teewee mu dem ci bu dajee àdduna teewee mu dem ci fàtte ay rakkam fàtte julleem fàtte borom bu wax waxu àdduna teewee mu wax lu ko neex fàtte la ko diina sant kooku pas-pasu diineem lu suufee la war na koy soññi ko jamono bu nekk comme bisimil nii nga xam ne jullit yëpp ay daje ñu fàttali ko ne ngën ji sa sallallahu alayhi wa sallam nii la daa taxawee jullit yëpp toog muy wax ak ñoom sahabatu rasul alayhim ridwanullahi akbar saa yu bu yonent bi saa sa musaana teew fii la ñuy teew toog di ko diglu bu noppee dem jëfe la ca topp ñu door ko jëf xanaa ñun ñoo mel ni saxaaba yooyee daara yonent bi sallallahu alayhi wasallam bisub xare badar xare yu mën a doon xare badar xam nga ne fukki fan juróom-ñaar la ci weeru koor fukki fan ak ñaar rek lañ ci def korite teew te teewuloon ñu julli eet tabaski am na xare yu bari yoo xam ne lu xare musaana mit du tey julli gi daan ko julli xutba bi daan ko teewloo loolu nag nañ ci jëmmatu yëlëb suñu xol yi génn ci àdduna te jublu suñu borom te xam ni faatu mii day bett ki doon waxtaan léegi muy sëriñ Wudu soñña na léegi ci taw it ñu koy déglu bu baax a baax wax na si mbirum yow wax yàlla dégg ngeen ko ku gëm ni nag daaw ba benn yaa ngi jël sa compte jigéen ñi def ay avec ngir waajal bisu tabaski ndax buñ ci àggee ma am lu ma defee nangam lu ma defee nangam ñii di yaram xar ni xar ni déwén laa koy tabaski noonu nga war a waajal bis penc ndax xamul ne bisu génn àdduna kañ lay doon jënd xar muy njar quarante mille nga ne balaa déwénee tabaski mën naa ko jaay trois cent cinquante te balaa weer wi nga génn àdduna ndax léeg-léeg june fi léegi nit june fi léegi ëllëg bu fa kori gi kori gi am na ko fi jëlee ndeysaan te borom pas-pas yàlla yàlla yërëm ca ëllëg seen génn àdduna te dara jotu ko kon nit ñuy waaj sun bi si aada yi nan koy gën a fonk di ko waajee di sun bi si génn àdduna yi bisu génn àdduna nag du bis boo xam ne da ngay naa nga di moom yàlla xam kañ la laa taatikumu illa baxtatan ci mbette rek lay jëw kon jullit bi melo yi ko yàlla sant mu nek ab julit la koy firndeel deug moy ngëm nga alquran neena na a'rab amana xul lam tum lam tomino walakin xuulu aslamna wala ma maa al iman fi qulubikum lolu bu ko settantal rek mu daal di sëkk arab mooy bi yonente bi salaa sallam dëkkee ci capital bi masalan ñoom ñu dëkk ca badiye ba muy arab yi nga xam ne alxuraan nee na al arab asadu kufran wa nifaq ñu gën a tar ak weddi bu seete jamono bi ñi dëkk ci kaw gi ñu gën a mën a dund aada ci ni ma ko mën a wax boo indi woon fiq sax ne lii la fiq wax ñun la waaye waaye sun aada yi maam nii la bi ñu ñëwee yonente bi ne ko ñun day amana ñun gëm nañu yàlla gëm nañu yonente bi gëm nañu sàtt islam ñëpp suñ borom da ko ne déedéet nee leen gëmagu leen gëm amu leen de kon ndek julit laa julit laa ak ngëm ju bokkul da ngeen wax ni xooloo aslam naa da naa naan tuub nañu dugg na ci lislaam tuub nañu dugg na ci lislaam mooy nangu nañoo wax ashadu an laa ilaaha illallaah ndax wala maa yudxilul imaana imaan gi tax yàlla reconnaître seen ngëm duggagul ci seen xol loolu kon ñun ndax foofu lañ toll ba tey wala weesu na foofu kon sifatul muslim yi gëm gu mat sëkk la ci yàlla sant gëm nag boo ko xasee def lu yàlla santaane amul sikki sàkk defal ci sens lu suñ borom tere bàyyi ci sens tey woyefal sa sa sa sa si jëmm bañ a rëy ak julit seet mi ngi yëg ne kiñaan ak rëy ak njistal mi ngi ci moom yor na aajanaam leeragul donte rakka yu bari na donte mooy imaam bay jiite jàkk ci nan seet xol yi di ko raxas di din rëy gi ak kiñaan gi tey nangu kàddu yu dëgg yi ni dëgg atawadu khairun min al amali way woyofal ci jëm su fal sababu te xam ne as ndiam rek nga ci jam yalla yi mo gën jëf yi bari ci ne julli ji junni ràkka tok di terbiye saxon ngir genn ak reey mo gën ci yow lolo waye nak di sam sey ciir ndax li dagal na man naa ko lekkam déet ndax li war na ko jëf wala waruma ko jëf sam góob ngay sam nak mo gën jang tire yi bari wa tawaru xayrun min al amali motax borom xam-xam bi ne xariir tawadu'i yet fii an kasiral amali nii toroxlu lu tuuti ci toroxlu sa diggante ak yàlla nga am ko moo gën di julli raaka yu bëri moo gën di fii bare bëri bëri te amuloo ak ak tawal waaye wa qalil war a yet fii an kasiral inni niw sàmm di wattandi ko tuuti sax di xool fi nga di xool wax ndax malaayka ñu ngi samay jëf lu mu néew néew nga am ko moo gën sax xam-xam bu bari bari ulama yi dajaloon di wax ci melow jullit boo demee ci imaamu abu shaaraani wala yu kaamil wax na ko ca xuutul xulóob fa asi kaanatu sifaatul muslimina allasina yusallimuna naasa ala aydihim wa qulubihim kaana ahadihim ida sukira indahu wa xayruhu bi shuin waqafa wa tafakkara fi shani nafsihi fa in kaana fii mithla saalika suui qataa alxayaau an ilkalaami fi aqihi fa sakka melaw julit dëgg dëgg dëgg nga dox ba yàgg nga dégg kàddu gu ñaaw ci mbokkum sa julit ñu ni diw nangam la bala nga deugal wala ngay and ci waxtaan wa mo xam journaliste sele buy jotale ay kat mo xam nit ko xamne ne mënta ñàkk ci garam place kàddu bu ñaaw bokk na deg wéré feel sa yow ci bopp xol ba xam kàddu bu ñaaw gin wax ci ndax ñu ci man wala nekku ci diw da nay diw daa kiñaan diw da nangam diw am nangam la xoola yow bu nekk ci sa sa kersa na la may bul wax ca lolé ndax yaa gën a tilim yaa gën a taq kooku ñuy wax jëme ci moom léegi nag da ngay gën a taq ñëpp ba noppi dàq mën a wax ñëpp ci teri jàmm ama amaaka an uyubika maa uyubi ay bi nas ma wa ma waqaan bala ngaa waxtaan ci ay yi nit ñi wiital ci sa nit nga tëju waxtaan sa xol sa jëf ji bon ji ngay jëf te kenn yëgu dem dëkk dëkk di financé alal ci alal joo xam ne kenn yëgu ku dul yow di wan sa ginnaaw sa njaboot di def loo xam ne yàlla gërëma ko yonent bi gërëma ko te bu ci seen biir gën a kiñaan ñëpp gën a rëy ñëpp loolu ngay fóot sa xol ba noppi bu dee boo déggatee koy waxtaan ci ay minute nag ca wax kon boo jàppee ni baax nga moytul ay bi jàmbur boo jàppee ni bon nga it lijjanti sa ay bopp ba noppi moo gën aw laa takk ay rajo di waxtaan ci ay moo tax mu ne boo déggee na nga taxaw ni tekk ah lu ma dégg ci diwree day noonu waaye nga xalaat ci sa mbirum bopp yow man na sama xol bii dëgg-dëgg nga mu ci rëy ak kiñaan bi bari na ci lool jikko yi ban yi ni wax ci biir yëpp mi ngi ci man su boobaa nga taxaw sa kersa na la may nga doy loo sa bopp ñaan yàlla mu faat mu dañ loola su nekkee ci keneen te nekkul ci yow nag nga noppi ca te ñaanal koo kee yàlla jëli ko ca loola loolu mooy melow jullit bis bii nag niñ ci jëfandikoo ci xeeti teraanga yëpp suñu borom mënu ko xéewale su ko sooban mën na ko cee bañ fekk sun borom kim santone mu jif jif ji ci ki wanti bis bi tamale won ci mom domum la ko rendi la ndax ñun ñi am nan pas pass jëfe digal yalla lool wala déet yalla sant nañu asaka de am na ko mënta te duñ ko génne ko ba ko daa ko ray lool dom ko def sun borom sant nañu ni taawanu alal birri wa taqwa alquran ko wax na ngeen di dimbalante ci njëkk ci lu baax diw aw sakata mi ngi bëgg daan yëkëtir ko diw aw dàllam dagg na soo ko mënee defaral ko diw dafa këriwee ci kaw tëli boo ko mënee dimbale ko te duñ ko jëf mukk waaye wala tawa taawuna alal ismi wal udwaan ku mer nga mer la ko ku jàpp ni di xeexee moom nga sotle ko loolu mooy la yàlla santaane ña ña ngi koy bañ a def la yàlla tere ña ngi koy def dimbalante tuum ci lu baax ak ci njëkk dimbalante tuum ci sàmmante ay der ak dimbalante ci situation jamono. waye ña ngay dimbalante ku mer nga mer la ko ku noonu nit nga japp japp ko ci lolo bu nit mere nit ab non xol bi nek ci mom ne ko dedet bu ko nono genn ci lolo ndax boo ko muñee borom na la ci dibbi lolo mo ñu war ñu dibbi ci waye ndax ñu ngi koy def defal kenn ko set bop mu digante lolo kon ñu farlu bu baax tawhid moy dundal bu julit nan yok sun tawhid jamono ak sene fo xam yaq yaq yi bari na salasam newon na fitna dana ñew nit ki dana xëy suba nekk ab julit balaa jant so di ab yéefar ndax situation yi jamono nit dana wax li ko génn ci lislaam te du ko yëg dana def li ko génn ci lislaam te boo ko ne woon doob julit mu mer julit yi jikko yi ak mer yi ak jëflante yi lépp nan xool la ci lislaam moom ñu góorgóorlu ci la ci lislaam moomul ñu génn ci ñi nga roy lu ñu royloowul te kenn rek la ñu suñu borom royloo muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan farlu ci loolu te farlu la suñu njaboot bo dege alquran ne xu anfusukum wa ahlikum naaran na nga góorgóorlu ci njub te jubloo sa dom ji na nga góorgóorlu ci sammu sa diine te sammu lako sa soxla si na nga sàmmoonte lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane woon te sàmmoole ko sa rakk yi ak sa jabar yi ñun ñëpp njabootu bi yonent bi la borom kër bu ne ya rab yaa représenté yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bir kër li yonent bi bañum ci aduna bi bañ ko ci diineem ji yow borom kër bo taxawee bañ le ko ko ci sa njabot yaa ngi dimbale yonent bi na la lu say dom def neex na la te neexul yonent bi sansam yaa ngi mel ni yonent bi sansam daa taxaw ci kaw mbar ngay gor tanki mbaar ma loolu mooy dëkk kon suñu doom yi ñi ngi jif jif yo xamni amana fa muñu ko ndax dañuy judd rek ñu dugg nañ ci école bi buñ wacce ci école ba loolu nasaraan bi jangal nañ leen delloosi xamal leen ni li ngeen jang waaw lii xam-xam aduna dom la nang ko jang ngir xam aduna way nak li la la seen dina sant ni ñu góorgóorlu ci sàmm suñu doom ci fayale seen njàng ci fay lépp nañ góorgóorlu ci sàmmale seen jikko ak seen i melo ñu farlu ci jëfe ndigal suñu borom yi ak wattandi ko tere loolu nag jëfe ndigal yi kenn ku ne la war wattandi ko tere bi wàccul kenn kenn ku ne la war borom kon na ko jëf te di ko digle waaye digle ak tere it ak éducation ndaw ñii pour waajal ëllëg suñu réew mi di Sénégal état bi la war ñoom nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ndax am na code yoo xam ni am na fi ci suñu justice war na fi man a daj mooy xale boo xam ni àggugul fenn te boo ko jubbantee ba àgg ak moom fenn fi yoon teg la loxo yoon na dimbali waajur yi ci doom yi waaye doom yi na dimbali réew yi ci seen waajur yi doom yi seen doom nañ yar njaboot gi ndax bu ëllëgee ñoo yar ëllëg réew mi loolu am sant la bu baax a baax kon loolu mëntoon a ñàkk ñu fàttalante ko di sant si yàlla bu baax a baax di dénkaat suñ ñi jiite suñu réew mi xëy na kàddu gi dana accès ca ñoom ndax seen ndawi ndaw ñu ngi ci jataay bi bindé ni dénk réew mi wolu ren rek tax ak am ñom yaaka loolu doon du ci waxtu wi daaw ki jitt réew mi ma nga ci kasso dem ko tabaski di rendi am xaram tënu ko ki tamu ci ginaaw muy premier ministre waxtu wi daaw ñinga wër kërëm gep dañ ko doon sarax ay tabi xari tabaski mu ñu ko dem dem amna action bu am solo mu def ñepp ko rafet moy bi réew mi patriote économique dafay war a am mooy bëgg sa réew bëgg luy développé réew bi waaye mën naa am waaye bu keneen amul sama yéen nekku ci loolu baaxul safoor bi bu ne junni bii rek lañuy paas fii marché taaxi kaw nga ne comme tabaski jot naa profité naa ko def ñetti junni loolu ak foqale donga la ko bu màggal Tuubaa jotee nga ne paas yi kat ñaari junni lañuy paas la lu ñëpp Dakar li mooy tarif tarif dëkk sangam bu dëkk sangam nangam la ñuy paas waaye xew am na naa ci occasionné wu yokk paas boobee loola nga ci yokk te sartante wuñ loola agriba lay te dana waral dana waral yu bëri yi commerçant commerçant bi yokk ay bagages am dana waral lakk bu bëri gi am dana waral nga tëdd bëgg di ñuy sàcc sa place sàcc sa ay la nga ñàkk xamul foo koy jooyloo waaye yàllaa dogaloon ne alal da nga ci dugal tëliwul daa waral a génn nga am sa bis bu bees jënd ko ay millions transport jot nga yokk paas ba yàlla ne ne sama jaam ñi ngi fitnaan doo jëriñoo jëf ji la nga ñàkkoon ci bis ba bis ba daal di tàkk daal di accidenté nga ñàkk ci ay millions daal di perte ñàkk sàmmoon teg alal muy indi la moo tax ñu ne soble benn soble bu nit boo ko dugalee ci ab saako te bokku ca day nëbal saako yëpp démb def naan ak si ba am solo dimbali nit ñi génn téeméeri biis fu waaye bëgg a jëm nga dem nga dem dugg ba noppi ñu wàññi paas bi kii def démb muy El Malick Ndiaye waxtu wi daal ñu ngi yow ab tànkam tak ko brasser la mënutoo leen génn dëkk bi kon bu leen yalla dimbale ñom am nañ repère fu ñu moy di leen far bon ko fatte mukk ca kasso ba leen génne dem ci dem ci pale ba fekk ñi ngi tek seen bos seen seen buntu ci lool te yàlla ko garaw ak mataragal ngeen baal ma yent yalla suleyman sun baam def na ko nguur juroomi timir at ka ayo yi ngeen ni war nii mbalit la ci mom mom ngelaw la da war noobu lool lay taxaw ci der bi rek لفوي ورا دخ وير مخي ادف كل وها شهر ورا وها شهر سن بروم نات نكو فك فان نيار يو خامي لا اله الا الله اك ترتي لي نيك نيك مور بو نيب ديكو نك دوغ ني سكر صاح نيت جيل بوتو واس خط خط خط يالا تيغي نغور كي سي سان نات بو فك فان نيار مو غنا ياغ سي مو فك ات نيار نات مو نمو جانغونتي كو ندخ بن جيف جي بو سو بو مو ديف موي غيس لا سوخنام نيت نيكو نين ني واخي ندخ استوار اسرائيل ادي دا فا بري واي سي نو تيغي ني دانيو ني دانيو وور مال يالنتي am na israilaat yu ni gis na soxnaam rek mu war fa lu mel ni ab istati di siyóotal bàyyam bu gaañoon mu jàpp ne day jaamu beneen jaamu beneen yàlla bu dul moom suñu borom natt ko ci loolu teggi nguur ga yàlla xef a xippi mën na see teggi nguur fi ne nga nekk nekk meer xef a xippi balaa fee àdduna torotaan nga xaj ci diggante mooy am na ñu fi nekkoon bi doomu la président signé ñu dàq dañ fa nekkoon ñeneen nekkaat fi te loolu sëful yàlla li fekk ñu ngi jël seen bët teg ko ci ñebe woon pale ba lañ jóge ñëw te dogalu bu yàlla képp la buñ daanu mukk kon yokk leen pastif yi ci nit ñi parce que def na at bu am solo keroog benn hôpital bu nam fekk ñuy ñu ñuy def jalis mu xool leen yërëm leen te jalis Sénégal dafa métti lu mat weer wu ne wala semaine bu ne fukki junni di ko fay ñu door a sens sa sa sa deret am na ñoo xam ne fukki junni dana ko fay door a mën a saw. mu len leg nan wañi tarifi ci jëlis bi ba nopi nak ku amul bo ñe may na nga faju bu wir nga do a commencé fay par ndang nak lool amna solo ndax ki am jëlis ñi bari ñi ngi faatu te mo leen rek lool ku ci amul yërmande amu xol baykat yi 2021 2023 état bi am na 47 milliards motax mbay bi daw dugub ah, dugub rek àggoon na ci 650 ci prix te mo gënal yomb ci dig dug daana jar fan ak juróom bu demee bay jar timer ak ñaar ko juróom situation am na bu catastrophe catastrophique ren ñu fay ñepp seen 47 milliards ñepp sañu lañu bay ba ñom sax ñan day day day gën paré bi dem bay lool ak ci bu am solo la wallahi al asim suñ ko defuloon nii lañ ko waxe fi ta du ngeen ci man dara ñun yalla rek lañ dëmm yalla rek lañu gëm moy suñu kilifa kilifa gi moy suñu rapper ci mom lañu jël lepp waye suñu ñak bop wi duñ talal mukk loxo état bu nekk luñ ci digg dañ leen koy wax de ak yu am solo tay ji digg na ben information hôpital yi amé lu na leen 15 milliards motax hôpital yi kën kenn vacciné tul bo dama da ngay rang ñet témir ci bop yi metti nga dem ñaanal jox la ay wër radio yi ci kanam tay ji duggal na 10 milliards fay nañ ko fi 3 ñu fay 5 milliards lool moy deug nañ yërëm askan yi son nañu amna na ñoo xam ordonnance ñaar témir dërëm tan koy màjjal aljuma ji yeñu fi jilé xam ngeen ko noddkat bii bis bu ne amna ordonnance fi tew amna kon wara a opéré am kon wara def nangam di ko dimbale kon jëj ci réew mi lan amako si néew nañ dimbale nit buñ góorgóorlu pétrole fenn ci réew mi premier ministre dal li tax xélam dal pour ñu renégocier contrat pétrole yi ndax tuba bi dañu doy war alal lañu gëm gëmunu yalla ñu alal lañu gëm di gëmunu yalla faw askan wi bëgg réew mi ànd ak ñoom ca loola tubaab yi mën a deltu ginnaaw ca loola waaye buñ leen jiitalee ba ne pakastal leen ñoom it duñ ñeme loolee te kon bu ëllëgee tubaab yi ñun dañuy xam te ñun ñëpp lay métti kon yàlla na leen yàlla sàmm te jëmmal leen may leen xolub bis bu ne ñuy xam ne askan wi leen fi teg waxtu wi daa métti woon na lool kaso yi fees na dem loolu dong la askan wi xeex takku man mii woote ji naa kon ci laa bokk kon sañ naa leen wax dëgg sëriñ bi leen wax dëgg. te wallaay bu ngeen nekkul ci digg yow monsieur le maire nga da nga bokk naa la wax loo xam ne di nga ko kon góorgóorlu ci askan wi yéen a war a bale mbedd yi yéen war a tuur poubelle mbedd bi ndax yéen a ko woote yéen a war a dimbali nit ñi ci hôpital yi yéen a a woyofal njëg yi yii lépp yéen la war waaye nag leen askan wi dimbali ñi war a fay impôt nañ koy fay ñi war a def lépp nañ koy def kon yàlla na yàlla dimbale te sàmm ñu waxtu wi déwén yàlla na ko bokk feewe kilifa yu baax yi sëñ Modou Lim lépp ñu mel ni ñoom ñëpp boo demee doomatal bisub tey bi eid bi ñu am bu ko dakk yalla na leen fekk ci ci seen xabru yi ya, ak mboolem julli yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi kon kàppar yi fi ak fukki kap fukki waxtu ak juroom tey ji ñent waxtu lañ ci moy mooy tosbaar san timis geewe suba juróomi waxtu lay doon muy juroom ñent ginaaw suba juróomi waxtu muy fukk ñent ginaaw waatu suba ca fajar lay jeex sa yo julle allahu akbar allahu akbar allahu akbar Mu ci gëna yobbu kon alxames ci suba lay jeex alxames ca fajar boo kabare ñetti kabare luy bari tuyaaba la boo dara nekku ci bàkkaar nekku ci waaye boo defee am ci tuyaaba ju rëy barakallahu fi